taxi man garage rond point Ngent vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teeru bi ngeen ñu teeru tey ndax comme ni ngeen ko waxee rek ñun tey euh, dañuy dagaat baadu askan bi moo tax euh, ñu jël journée bi jagleel ko garage taxi transport en commun te loolu bu amee. ñun ci suñu coalition bi ñuy wax coalition citoyenne ànd Siggil Thiès dañoo jël en considération bépp secteur d'activité boo xamante ni mu ngi si biir Thiès ci loolu dañu jël sunu frère Talla Ndiaye di président regroupement des taximent de Thiès investir ko ci sunu list ndax moom kat dafa am taxawaay bu am solo boo xamante ni mu ngi koy liggéey pour que taximan yi nekk dans de très bonnes de travail moo tax bi ñu doon tënk suñu programme dañoo tenir en considération soxla yi nga xamante ni taximan yi am nañ ko fii ci Thiès d'abord wax nañ ko mooy tracasserie routière bi jafe-jafe yi nga xamante ni yéen a koy am si yoon yi d'abord mooy yoon yi nga xamante ni euh, baaxatul tali bi foo romb am na ay kàmb te loolu je pense que ne responsabilité collectivité territoriale la pour ñu mën a def euh, li ñuy wax la réfection des routes amaana mairie du moom mooy defar ay tali yu bees mais mairie moo yor devoiru euh, réfectionner route yi nga xamante ni dafa am ay jafe-jafe ndax yéen da ngeen di fay chaque mois da ngeen di fay patante da ngeen fay ay tax loolu dañ ko war a delloowaat si seen jëfandukaay moo tax vraiment suñu programme bëgg nañ réaménager route yi nga xamante ni si ngeen yi jaar pour seen liggéey mën a jaar yoon mais surtout nag zone yi nga xamante ni ay zone périphérique la mooy quartier yu bees yi sancaani parce que bi ñuy jógee fan yee di def une journée un quartier dem nañ si quartier yu sori yi yu si mel ni ay lew na ay Bagdad ay euh, Cité baax ñoom ñu waxal ñu seen jafe-jafe yi taxi yi du ñu egsi ba foofu te loolu je que ni c'est parce que amuñu infrastructure yoo xamante ni yoon yoo xamante ni taxi yi mën nañ egsi ba foofu donc moo tax suñu programme bëgg nañ aménager yoon yi nga xamante ni yéen seen liggéey dina mën a yomb pour que askan wi mën a jot ci seeni service te je pense que ni loolu am nañ ci taxawaay donc ñu ngi leen di wax nii rek préoccupation bi gën a am solo mooy seen garage yi nga xamante ni moom ngeen nekk parce que ay citoyen ngeen dégal dignité garage yi ngeen di nekk fi ngeen di fi ngeen di lekkee fi ngeen di noppalu ko donc ñu bëgg bés bu ñu nekkee maire ñu créer si garage ay aire de repos yoo xamante ni dañ leen fi defal jàkka mais également defal leen fi ay toilettes mobiles bu ko defee bu ngeen tawee ba sonn di ngeen mën a ñëw def fi seen i wàccuwaay julli fii am zone boo xam ne fa ngeen di noppalu ko ndax aussi nit ki mënoo rek xëy suba ba ngoon jot doo noppalu ko mais doo am foo xamante ni fa ngay defee say besoin donc Euh, gëm nañ ni war na mën a nekk te bokk na ci suñu programme mais surtout nag fonds de solidarité parce que wax ngeen ko da ngeen di liggéey te amu leen benn garantie au soins médicaux bu ngeen feebaree yéen jël seen xaalis di faj seen bopp te amu leen assurance retraite parce que aussi ku si ku si retraité da sonn moo tax ñu bëgg a teg fonds de garantie boo xamante ni dañ leen di jàppale si couverture maladie universelle bu ko defee faju ngeen xam ni mairie bi municipalité bi am na fonds boo xamante ni dina nekk en partenariat avec les hôpitaux avec les centres de santé pour uniquement les chauffeurs de taxi mais également fonds de garantie bi war na mën a nekk loo xamante ni day day bokk ci renouvellement te taxis seen oto yi nga xamante ni dem na ba màgget ñun dinañ jéem a teg benn fonds de garantie boo xamante ni ci la leen accompagner pour ngeen renouveler seen parc automobile di wax ni rek vraiment loolu bu amee sunu frère bii moo ñu jox préoccupation yooyu yëpp moo tax ñu dëxañ ko si suñu programme parce que booy dem si askan bi dangay xam lan mooy seen jafe-jafe da ngay xam lan moo leen yi métti moo tax coalition bi ñu teg di coalition citoyenne dafa tenir en compte secteur d'activité yi nekk Thiès artisans yi chauffeurs yi mécaniciens yi commerçants yi enseignants yi médecins yi donc yëpp koo xamante ni bokk nga Thiès bokk nga si suñu coalition bi ndax suñu yéene mooy defar Thiès mooy changer xar-xam Thiès mais également créer changement parce que changement nag dafa jot ndax wax ngeen ko jafe-jafe yi yàgg na te boobu ba léegi kenn mënu ko saafara ñun nag suñu yéene mooy changer Thiès defaraat Thiès ba ñëpp képp koo xamante ni Thiès waa rek nga mën a dund dans de très dans de très bonnes conditions créer cadre de vie bi nit ñi di dem di dëkk dañu am benn jafe-jafe donc ñu ngi kontaan si yéen loolu aussi nag li ñu ko mën a may mooy sensibiliser nit ñi ñu voter massivement voter la list verte la c'est la coalition bi nga xamante ni mooy naataange mooy espoir mooy ki nga ñi nga xamante ni ñoo war a liggéey dëkk bi donc na ngeen sensibiliser seen mbokk yi doom yi soxna yi wéyjuur yi ñu xam ni kat li tax lii ma mën a wax lépp ma mën ko réaliser mooy ñu gagné élection yi au soir du 23 janvier pour que ñu mën a ànd ak yéen liggéey ak leen ci seen soxla yi ngeen a xamante ni am ngeen ko pour kenn ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm. tey moo fi ñëw fii tey fii di xamale nag taximaane Thiès yi rompaye ngent ñoo nekk fii di jàppale Ablaye Dieye jàppale gu mag te duñ ci dellu ginnaaw benn yoon. te fii garage bii nga xamee ne mooy garage Rompay Ngent quatre-vingt-seize personnes ñoo ngi fii ci garage bii te man mii maa leen fii yàlla def naa dañu fiy def ay social chaque jour chaque jour dañ fi génne douze mille francs dépense boo xam ne dañ koy jox di ko togg di ko jox taximaan yi fi nekk ak mboolem képp koo xamante ni bii yaa ngi jaar fii des na ci jox képp koo xamante ni bii tamit xewle nga di wëlbati ko suñu kees wëlbati ko yëkkati lañ la war a jox ñu jox la ko ginnaaw loolu kowet bi bin fi amee fii un million la ñu yëkkati tasaare ko taximaan yi pour def ko social kon loolu lu rëy la lu ndaw fii ci garas bii indil nañu fi bay màkke mu jóge ci Marème Faye Sall kon garas bii ku ne gaaru ceer di nga tudd garas su rom kon tey jii wax dëgg yàlla Ablaye Dieye ñun ñoo ngi sa ginnaaw tey ba ëllëg te bu neexee yàlla incha allah kenn koo xamante ni bi tey mi ngi fii am na doom am na jabar am na ay tante te ñëpp bu ñu wëlbati yaakaar naa ne kon jombul ni li bëgg da nga ko war a mën am. ñu leen di ziar leen balu ak di leen baalu ak du nuyu monsieur le président di ko dalal jox ko wàccuwaayam bu mat di ko xamal ni ko rond-point bii mbooloo mi waroon na ëpp lii mais chauffeur yi ñoo am ngénte tey moo tax genn wàllu chauffeur yi dem fa. te ñun mbokku taximaan yi tamit li ab sàcc bañ moom lañu bëgg muy ku ñu yëg di ñu jàppale ci suñuy tawat ak suñuy bëgg-bëgg di la ñaanal yàlla lii ngay yóotu yàlla na la yàlla defal jàmm nga jotti ak jàmm ci kàttanu yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala kàddu yi daanaka jërta baril ndax monsieur le président jàllale na ci lu bari bi ci des mooy bëgg-bëgg bi benn la tawatu Thiès tawatu askanu Thiès bu ñu gisee ku bàyyi yitteem bàyyi ay soxlaam jël alalam di ko ci def uniquement ngir jàppale population Thiès kooku képp kuy yeewoo Thiès amoo payoram wax dëgg yàlla monsieur le président ñi ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay bu baax di la dalal bu baax di la ne ah ñun taxi maani rond-point Nguinth ak képp koo xam ni yaa ngi ñuy dégg suñu kàddu ñu ngi lay ñaan nga jox ñu sa loxo ñu teg ko ci loxo monsieur le président ànd ak moom ba ca urne ya jox ko su kartam ànd ak moom ba ca mairie ba wax dëgg yàlla loolu la ñuy mébét. sargal di leen nuyu ci collectif taximan de Thiès garas Dar Jàmm bu Médina Fall ci président bi Balla Ndiaye di la jox suñu kàddu ci li taala wax ni ñun doon ñoo mos a boole ci élection ñun taximan yi kon boo créé mobilisation boo xam ne dugal taala ci conseil mu bokk ci maire bi. mooy yéen nga taximan yi bëgg nga ñu am ci cër te loolu moo ñu manqué woon ndax xam nga maire ñun taxi am nañ doole ci biir dëkk bi chaque fin du mois dañuy fay mille francs kon am nañ fi njariñ am nañ fi doole étranger bu ñëwee ci ñun lay yem te li ñu soxla ci dëkk bi buñ gisee ku ñu ko fajal boo ñëwee tàllal sa loxo dañuy ànd ak yow point yi ñuy cité ah bokk na ci Thiès dañ koo fay ba mu dee tableau signalisation sax amatu fi passage collisé pour nga mën a jéggi gisoo ko fi yëpp yàqu na maire jéemu ci dara muy kàmb yi tout li ñu manqué dafa bari bu ñu demee nag ba nga jël ci ñun kenn dugal ko ci biir maire bi mooy bëgg nga ñëw fajal suñuy rangooñ kon yal na yàlla mottali yal na yàlla àggale li ngay yóotu yal na la ko yàlla jox ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël kàddu gi di ko delloo ndax ñii ñu ñëpp benn lañ boo gisee bi ñu def élection garage bu mag dañoo dajaloo dajale collectif bi te la ñu bëggoon dañ koo am ndax dañu mbooloo mooy doole loolu olof Njaay ko wax sax waaye dañu xel yu ànd mooy doole kon yàlla na yàlla mottali rek ñu ànd ñun ñëpp ba bis ba ni ngeen ko bëggee ñu defe ko noonu bu sooba yàlla li des nag mooy taximaan yi nga xam ne nekkuñu fi bu sooba yàlla lii dina àgg ci ñoom ñu xamal ni leen kii kat moo fi nekk te li mu tegagul doy nañu ndax jël na ci ñun kenn dugal ko ci biir mairie bi boo soxlaa dara boo demee ci taala moom dina ko àggee sooba yàlla kon yàlla na yàlla mottali di leen jaajëfal rek di leen jox kàddu gi